الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه mbokk jullit yi ñu ngi dénk suñu bopp di leen dénk tënku ci ndigali borom bi azza wa jal di wattandikuloo suñu bopp di leen wattandikuloo bëtt ay tereem di jëmale suñu xutbab tey ci benn tomb muy sant borom bi tabaraka wa taala ci ay xéewalam borom bi tabaraka wa taala ay xéewalam ci kaw jaam yi mëneesu koo lim la tàmbalee ci xéewalu mu sàkk la la euh, def la ngay ab jullit def la nga bokk ci xeetu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam euh, defal la xéewalu li ngay dundee xéewalal la ab dëkkuwaay xéewalal la euh, ay waruwaay xéewalal la ay xeeti xéewal yoo xam ne wet boo xool seen mu bari lool yooyu xéewal nag borom bi tabaraka wa taala bëgg na jaam bi di sant di ko ci sant waxtu wu nekk sant yàlla suñ ko waxee mbokk yi dara gën ca lay sax ci ay ndigalam sa kemt lay kàttan ca wattandiku li nga xam ne moom la tere ca waxtu wu nekk ngay tuub lépp loo xamante ni bi ak njuumte la ak rëcc ci la ci xeeti bàkkaar yeeg yi sant xéewal mooy tax xéewal sax mooy tax si xéewal dolliku mooy tax tamit euh, jaam bi man koo jariñoo dëgg dëgg jariñu kon xéewali yàlla yi bari na lool ci sunu kaw ku setantal da ko gis borom bi wax wax ne bu ngeen doon lim xéewal yi nga xam ne defal naa leen ko du ngeen ko mën a takk waaye doomu aadama de de ku goree di la ku mën a weddi la kon sant yàlla ci ay xéewalam war na ci bépp jullit mu sant yàlla ci aw làmmiñam gis na lépp loo xaman am am na ko ci xéewal moo xam xéewalu xam-xam la moo xam xéewalu wér la moo xam xéewalu njaboot la moo xam xéewalu jàmm la lu mu mën di doon ci boroomam la jóge wa ma bikum min ni'matin fa min allah mu nangu loolu di ko wax ci làmmiñam waaye tamit reconnaître ko ci ab xolam waaye tamit la mu laaj ci ay cëram mooy delloo xéewal bi ci topp yàlla mu def ko loolu mooy ak cant su ko deful dafay doon koo xam ne ko goree di la ku weddi la kenn ci ñun du nangu ab surga boo xam ne dafa nekk sa kër nga wutal ko fu muy fanaan di ko jox mu lekk di ko jox mu naan bu wéradee nga faj ko ba noppi bu xëyee di xëyal keneen benn doomu aadama nangu ko yàlla nag moo gën a bañ loolu ca kay sant xéewal njariñal cant gi ci moom rek lay del doon dellu wa man shakara fa innama yashkuru li nafsi wa man kafara fa inna karim kon faxe fayee xéewalug yàlla ci ak sant lu war la ab jaam Sëriñ Tuubaa radiallahu anhu daf ñuy wax ci masaalikul jinaan ne yow jullit bi rek waaye bu di xéewloo xéewalug yàlla ba noppi di jaamu keneen wala nga di ko fala takun akila rizqi llahi wa anta fi kulli zamanin laahi sunu boroom lim na ay xéewal yu baree bari yoo xam ne wax ne defal nañu ko ngir ñu bàyyi ci xel bokk na ci xéewalug sàkku ñu wallahu axrajakum min butuni ummahatikum la taalamuuna shay'a yàlla moo leen sàkk génne leen ci seen biiru ndey ca booba xamu leen dara mbooleem jumtuwaay yi nga xamante ne bi mooy tax nga xam mën a am mën a xellu mu sàkkal ñu ko defal ñu ak dégg defal ñu ay gët defal ñu tamit am xel tàggatal ñu mbooleem géej gi ak jéeri ji ñu di ko jariñoo ci mbooleem xewal yi fi nekk defal ñu guddi ak bëccëg ngir ñu ko di sant di ko ci jaamu ci waxtu wu nekk kon sant yàlla war na ci ay xewalam yu baree bari sant yàlla ci xewalug amal ko amal gim la amal waaye sant ko ci xéwalug def gim la def ngay ab julit bokk ci xeetu muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaye xéwal yi nga xam ne lim naa ko léegi muy jàmm muy wér-gi-yaram muy alal muy ak njaboot lépp ay xéewal la yoo xam ne euh, war na jàmbi mu sant ci boroomam sant xéewal day tax xéewal sax day tax xéewal yokk waaye ñàkk sant xéewal day tax xéewal euh, dandu day tax tamit boroomam du jariñu tey du jariñu ëllëg borom bi mu ngi ñu nettali xeet yi nga xam ne ñoo ñu jiitu woon ne defaloon na leen xéewal defal leen jàmm seenu wërsëg leen dikkal waxtu wu nekk béréb bu nekk waaye ba ñu weddee xéewalu yàlla su borom mosal leen li nga xam ne mooy ab xiif mosal leen li nga xam ne mooy ak ragal ak tiitaange ak ci sababu mooy yàlla nga xamante ni moom nekkoon kon sant yàlla suñ ko waxee mooy jéem a tënk sa bopp ci ay digalam watandiku li nga xam ne mooy ay tereem cay tuub saa su nekk koo xamante ni lii de ñàkk nga jàmm danga xam ne jàmm xéewal la waaye képp koo xamante ni bi ñàkk nga li nga xam ne mooy ak dal danga xam ne ak dal xéewal la nit yi saba sunu borom mu ngi wax xéewal yu mu leen defaloon ci seen dëkk ba ci ay tool ak i ndox yoo xamante ni bi yu yu baree bari la waaye ba ñu weddee mu dindi yooyu yépp faagaagal ko dalika jazaynahum bima kafaru wa hal yujaza illa al kon loolu mooy sunna si yàlla saa yu joxee ay jaam xéewal ñu sant xéewal ga mu bàyyee leen ak xéewal ga waaye saa yoo xamante ni bi weddi nañ xéewal ga mu nangu ak xéewalam mbokk yi ci munaasaba bis bi nga xamante ne bi mooy bisub màggalug tubaa ñu dëgmal ko Sëriñ Tuubaa radiyallahu anhu euh, fàddu woon taqali ko woon akum njabootam ak um réewam diir boo xamante ni bi jege na juróom-ñetti at tumuranke lool wéet lool di dund ci digg ay noonam di jànkoonte xeeti tartar ak i jafe-jafe ñu xañ ko xaqam xañ ko karamatul insaan waaye mu teg bëtam ci waxi sunu borom tabaraka wa taala walladina jahadu fiina lanahdiyannahum subulana wa inna allaha la maa almuxsinin mu muñ jihaad ak bakkanam jihaad ak noon yi nga xamante ni bi ñoom la doon jànkoonteel ci xalimaam ci xam-xamam ci ay xalaatam ba sunu boroom jox ko ndam mu dellu siwaat ci réew mi indaale ndam drapeau bu lislaam yëkkatiku di fër-fëri fépp euh, ñépp bokk ci yam loolu moo tax ca mu juga mu woote bis boo xamante ne bi la ko ci suñu boroom defal laaj na sant cant goo xam ne moom lottu na ci mu sàkku ci képp koo xamante ne bi mbégam sa mbég la nga sant la ko yàlla ci xéewal yooyu mu ko defal ndax nattu yi nga xamante ne bi doon nañ ko ko teg dafa wax ne ay natt la yoo xam ne bari na lool toll ne limub aaya suratul baqara ca at mu nekk bis bi nga xamante ne bi ca la natt ba tàmbali muy 18 safar su daan ñëw natt ba dañ koy yokk nga xam ne bis bu nekk bi 18 safar ñëwee day séentu moom ak natt bu yees boo xamante ni bi dana ko waajal ci pas-pas ci dëgërlu ci yàlla ngir man koo dékk ba at ya jeex sunu borom tabaraka wa taala ko ne ko natt bi jeex na ak fay rek ci des nam doon fule natt yi ci at mu nekk mu ne noonu nag lay fule yi nga xamante ni bii noo mooy ay mayam maanaam mooy fay gi nga xamante ni moom la ko jàll fay ci at mu nekk ful bi mu doon ful natt yi ci at mu nekk hakaza saa yu dix-huit sama ñëwatee ñëwatee tamit nee na noonu la suñu borom di fuy di ful fay ga nga xamante ne bii ca la ko fay loolu moo waral mu woote ak cant muy bis boo xamante ne bii waxtu wu ñëwee ah, danañu fàttelu ko naa bis bii kat lislaam amoon na ci ndam lislaam yëkkati woon na yëkkati woon na ci bu njëkk moom ci boppam moo ko woote moo ko digle ci jamonoom ci njaareem waaye booba fu ab jullit nekk fu ab murit nekk nekk waxtu woo xamante ni bi ñëw na nga fàttaliku bis boobu la nga man ci jaamu yàlla la nga man ci bégal sa mbokk jullit ci berndeel leen nga def ko waaye kenn dawul daje waaye ni nga xam ne ki fu mas a nekkal sëñ Tuubaa radiyallahu anhu waxtu wu nekk yaa ngi xalaat ak a jëf loo xamante ne bii mooy doxal yoon wi jëme ko ca kanam mooy gën a yombal tamit liggéey bi tax na ci jamono yi suñ fàllu mu ne nañ ko defee Touba ndax boobu communication ni mu amee ak ni mu yombee amutoon booba waxtu bu ñu dajee fii ci Touba su ñu defee bis boobu ba noppi mu jox leen ay ndigal def leen ay jox leen ay joxoñ digal leen tere leen kenn ku nekk mën a dem ba beneen yoon kon bis boobu bisub daje la ngir fedd li Euh, ngir sant yàlla ci xewal googu waaye tamit bis la boo xamante ne bi bisu dajale boo xam ne fii ci Sénégal gisuñu ci bis boo xamante ne bi toll na ne moom ci lu ay jullit di dajaloo kon bis la boo xam ne war naa nekk fursa posé ci mbooleem loo xamante ne bi luy lijjanti suñu mbirum diine ak luy lijjanti suñu mbirum réew àddina war nañ ko cee waxtaane war nañ ko cee lijjanti waaye lu bisub noos rek ak bisub xawaare sëñ bi woote loolu mës a woote loolu euh, moom lislaam la doon liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la doon liggéeyal samp sunna moo ko fi taxawoon a ñëw wax na ne képp koo xam ne but nga dëkk ci kër goo xam ne soo fa toxoo àjjana rek mooy sa kër na dëkk ci ndigali yàlla yi nga xam ne man de mooy sama dëkkuwaay ndigali yàlla yi nee na mooy ab dëkkuwaayam kon képp koo xam ne bëgg nga dëkk ci kër goo xam ne boo fa toxoo aljada ngay jëm directe nee na dëkkal ci ndigali yàlla yooyu nga xam ne man de mooy sama dëkkuwaay ku dëkk ci ndigali yàlla yooyu nga xam ne mooy sama dëkkuwaay de nee na doo taqaliko man li feeg taqalikoo ak ndigal yooyu kon li feeg jullit bi mi ngi tënk boppam kon ci ndigali yàlla yi moom dafa laa jàppe koo xamante ne bii ci ñooñ am nga waaye saa yoo ci tàqalikook ndigal yi nag bu boobaa génne nga sa bopp ndax ay sartu la tëral ay melo la tëral yoo xam ne koo xam ne remplir nga ko yaay am murit yaay ki ànd ak moom yaa bokk ci ak ngañam waaye su fekkee ne yooyu nag remplir woo ko bonte da ngaa dëkk ci taatu jumaa ja xamal ne doo ab murit bokkoo ci ak ñoñam moom lu leer naññi la wax lu leer nañ tamit la woote nee na bu du doon sunna si yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bu du doon ak gindi xeetu muhammad sallallahu wa sallam kon àddina jëralamu ci benn guddi ma fanaan ko fi kon loolu lu leer a leer la kon eh, yal nañu yàlla dimbalee yoon wi nga xam ne moom la rëddoon doon ko wone ñu mën cee tënku mën caa tënk suñu bopp ca musal ñu ci yi nga xamante ne bi yu baree bari la mu xew ñi di ko ko taqal wala di ko taqal yoon wi ca fekk ku ca deñ la ba set wicc ndax koo xam ne da jëf ñépp gis mu bind bàyyi fi mu yar ay nit ñoo xam ne nekk nañ ci ba jóge lislaam mosuleen a jam ci benn wet sunna mosuleen a jam kon ku bëgg a tënk sak ànd ak moom sak murit fexeel ba tënk ko ci loolu tënk ko ci li nga xam ne moom la bind bàyyi fi xoolal ci li nga xam ne ñoom la yar xoolal ci li nga xamante ne bi tamit nettali nañ ko muy lu wér ne moom la nekkoon moom la doon jëf ca bañ a tënku ci dégg naa ak nee nañu ak benn bis ci njaareem yooyu kuy toxal xam-xam doo ko toxal jëme ko ci waa ci doo ko toxale ci ci ci ci toxaluwaay yooyu yàlla yàlla defal dégg ak topp yàlla yàlla def ay jaam di nga xëccal ci ñu jaamu ko te mu nangu leen seenu jaam te xawra leen aljanna wa axiru daawaana an alhamdulilahi rabbil alamin